ci benn activité boo xam ne dafa bokk ci activité préparatoire màggal gi mooy xew-xew yi nga xam ne dafa dañ koy wax bokk ci ñuy waajale màggal gi te muy activité yi xam-xam association bi ñuy wax ma ca solidarité muy dimbalante ak développement muy lu jëm jokkute tax koo jóg moo ci la lëkkaloo woon ak comité d'organisation bu màggalu Touba. liñ fi doon waxtaane ci biir séminaire bi thème mu séminaire bi mu ngi jëmoon ci finance islamique ak taxawaay bi nga xam ne Touba mën na ko cee am wala war na ko cee am kon ay boroomi xam-xam yu bokk ci kuréel yu wuute ñoo fi daje woon séq ko ak ay spécialiste ñu def fi ñaari exposé yoo xam ne benn bi mu ngi jëm ci finance islamique ak lan mooy finance islamique lan mooy ay cëslaayam lan mooy ay njariñam ginnaaw bi ñu wax nag finance islamique boobu Touba taxawaay bi ci war a am ginnaaw loolu def nañ ay atelier yoo xam ne waxtaan nañ ci ñetti tomb tomb bu njëkk bi mooy Touba atu yi mu am mooy li nga xam ne daal ab yóbbal la boo xam ne am na ko lu koy dooleel loo xam ne mënees na cee jaare ba développer finance islamique fii ci dëkk waaye beneen tomb bi mooy Touba yan stratégie maanaam yan yoon lañ mën a jaar lañ yan tëraliin lañ mën a tëral ba tax finance islamique développe bi ak nag yan recommandation lañ war a def ngir que ñu mën a def mise en œuvre loolu li tax ñu tànn thème boobu ci Touba Touba de dëkk boo xam ne ñu ci baree baree bari suñ sañoon jëflante yi ñuy jëflante yëpp day tege ci lu lew te loolu nag finance islamique mën na leen cee dimbale ba Touba koom-koom mi gën a yokk mu mën a nekk locomotive ci développement euh, gox bi waaye def développement Sénégal gépp kon loolu moo fi moo nekkoon ndaje bi ci njeexital liñ tënk lépp autorités yi teew nañ kilifa yi teew nañ muy comité d'organisation bi Serigne Abdoul Ahad Gaynde Fatma teew na fi ak ñi nga xam ne ñoo teewal mais commune bi muy Serigne Khadim Mbacké ànd ak Serigne Cheikh naam suñu El Hadj Bara ak Serigne Khadim mi nga xam ne Khadim Lo bi nga xam ne moo jiite association Hikma ñu ñoom ñoo doon ñoo def nañ cérémonie bi ba restituer li nga xam ne moom lañ tënkee woon ci jotaay yi. mu eh, opérateur économique yi teew na fi sëñ Moustapha Gadiaga wax na ci seen tour ak mbooleem kuréel yi nga xam ne ñoo bokkoon ci liggéey bi loolu kon mooy li nga xam ne moom lañ fi doon liggéey eh, ànd ko comité d'organisation bi ànd kook association Hikma ba sottal ko